Meglio. Mm-hmm. assalaamu aleykum nekku nekk jàng fatiha ak li ilaa fi qurayshin هك آية الكرسي هك فلقي هك ناسي هك صلاة على النبي ندفكو هدية يونان تبي ندوغل تيين يب إن شاء الله

bi ci des itam du wuute ak waxtaan yi dana am waxtaanu fàttalente rekk la ah. xëy na léeg ñu xaw géje sax waaye géje bi def di baaxi rekk waaye mën naa am bu ci baatin duñu géje raison yi taxit dafay bare bu njëkk bi moo di li ñoo tudde al wujudul mutlaq ak li ñoo tudde al adamul mutlaq al wujudul mutlaq dañ ko moomale sunu borom mooy ki fiy nekk te du fi jóg mukk العدم المطلق نك جاميكم موم مو خام جامي نك تا كاو تا نانغو ونيو يالا بيند لين تا دانيوي باغي جوم موتاخ بولين يالا كونيت ني غانتال دانيوي باغي جوم آه. فوفو العدم المطلق فوفو لا waye bu dee ci nitu yàlla yi pour ñom amna na lu sàcc ci yàlla ci al wujudul mutlaq moy li ñoo tudde al khairul mahd ku fasiyene ci sa dund do def ludul dul yiw te nga fasiyene yéene yiw ba du dak abadan bo fa nekatulit ya nga fa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 puisque baatu gàddaay bi alquran ñëwee la baatu gàddaay commencé di jib waaye ba ci Muusa ba ci Isa yàlla tuddul gàddaay alfiraar le tudd ah, daw ca ba ngay ami tank ah, waxin la maanaa daw def di ñaari façon benn nga daw min ba nga daw ila ah, bu min duggee rek am na koo ragal wala am na loo ragal fa farartu minkum ok lamma xiftukum bu min duggee rekk am na koo ragal wala loo ragal ah. daw ca ba nga ami tànk waaw bu fekkee ni ilaa nag fa firru ila allah waaw moo tax ñu koy tuddee safaru talab waaw am loo soxla te fa nga ne fekk nga di fa ne la nga soxla du tegu ci sa loxo ñun la dawal ca ba nga yami tànk ah ah motax fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi xukman gaawewul nonu alquran ay waxe nonu mu melni yëf yi dafa gaaw fekk gaawewul nonu ndax fa lamma tawajjaha waaw kay tilqaa madiyan قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل آه. آه. بجا قال نجوت من القوم الظالمين جا واو يا خيو يب خيو يلا دي فوهب لي حكما جا وجعل مني من المرسلين ايتاب بار ايتاب آه. آه. moo منول نياك waaye bi yonent bi ñëwee nag lañu dindi baatu firaar def ko hijra parce que hijra boroom c'est rare mu dellu gàddaay c'est boroom dellu waaw yonent bi bi mu bàyyee Makka dem Medina dellu siwul أنا دلو سي نيبي سي فتح مكة أنا في دوخ مو ديف ليكو وار أنا وات با ني سول كو فا أنا سييت شيخ جوغي عين ماضي واو أنا نيو فاس لا تموي نيو فاس جار نفوني واو با ني خي سول كو فا مانكو كاي واخ بركي ديمب فك ما مام شيخ بي واو سحنا فاطمة gannaaw fay layka yem na mahammadin waaw maam lu ma ko fàttali te mooy guddi gàmmu gama gàmmoowul ci waawoon te dem ca moom wax ak moom la ma wax ak moom dénk ko ko sama diggante ak Seyid Cheikh waaw ma rappelé ko ko foofa waaw ba tax na ndeysaan maa ngi xool maam Babacar ndeysaan tuutiwaay bi mu ngi yor loxo yi def nii rek di ma xool di xool raw du sayid cheikh ndeysaan ah tuutiwul waaw tax na ci cadre tourisme laa wax tourisme mystique waaw waaw naa dem fa pour wuti fa dara sax déedéet waaw mais tourisme mystique rek la woon waaw tax na kon léeg-léeg rek ci lu ñu la jox recommandation nga bañ fi di toog ndax toogaay bi léeg-léeg moo am lu muy yàq te du ko yàqee ci yow feneen la koy yàqee te boo sañoon foofa dara du fa yàqu ah, ok loolooy tax waaw bu ko defee kon nag soow yu bare Y'a yabuti ci tey dafa am lu tubaab di tudde bénéfice du doute waaw am loo xam bu la wóoroon ni moo ko wax sax neel waxu ko pour libérer sa bopp waaw ah. dafa bari rumeur yu ma daan dégg léeg am ci yoo xam ni bu ma ko déggee ma dem ci moom ni quoi dafa am rumeur bu ma dégg ma dégg ñu wax nangam ni yaa ko wax ci man mu ni ma man ma ni ko mu ni ma waxuma ko de billaahi wal kitaab beneen yoon ma dégg beneen rumeur bu garaaw ma ñëw ni ko ah dama dégg rumeur sàngam de mu ni ma Moustapha ma xool ko mun ma sama wëllëreeg yow ndax sañ naa loolu ci yow beneen ba ma dégg beneen rumeur ma ñëw ni ko ah, dama dégg rumeur sàngam te fekk ki ba ko wax Moustarchid la mu ni ma demal nga woo ko ba mu ñëw nga ni ko góor gi nee na da fen bu ko weddee nga wax ma ma woo ko woo la ngeen toog beneen ba benn ministre gouvernement bi toog ak man ni ma góor gi moo ma wax nangam ma ñëw ci moom bi gàmm gi desee ñaari fan moo tax ngeen gis comportement ba mu am ñu bari xamuñu lu xew waaw waaw ah, ministre ma wax ne ma yaa wax nangam mu ne tekk ba ci yàgg mu yëngal bopp bi ni ma mu saf ma ne ko la béykat mu ni ma est-ce que boobu sama façon la kon nag boobu rekk am solo bi ci des itam mas naa leen ko nettali parce que man lu may nëbb lu ma ragal mooy tax xaqiqa bu ñëw rekk ma wax leen ko ku ci fàttaliku bés wax naa la lu ma mas wax fekk am lu ñu ma nettali ma ñëw wax ko ko mu ne tëkk ak mu ne ma mu sëf ma xool ko mu ni ma man Cheikh Tidiane di sa baay di sa kilifa di sa sëriñ est-ce que sañu wax la lu la naqari nga muñ ko ma ni ko li ma ci neex rek mooy ñett yi nga tudd ni yaa ko doon ci man lu xamati baax na waaw comme nangu nga yaay baay yaay kilifa yaay sëriñ doy na waaye gis nga am na loo xam ne ku ko am ca ko la yàlla booleel la ca des yëpp baax na ah. bi ci des nag ngeen déglu moom mu waxal ko boppam waaw ah. mat na ñaar fukki at ak ñeent gannaaw suba altine ci lay nekk datu anniversaire bi mu ko defoon le 24 octobre 1987 position wala sa dem jarul nga weer say bopp position wala setal sa der jarul nga weer say bokk jarul it nga sa say wëllëre ku ko def rek daf nga Wam kay da ngay set ni saga, ndax jar ñu tontam de. wat nak cial yàlla ni yonent bi rek la gëm bu ma saaga ma fayu رك لاقم ومسحق وعليك مفي الشيخ الحاج مالك لك لاقم ومسحق عليك مفي والله يسرين بابا كرسي ويسمى اللب ومسحق عليك مدى لوكوكو من القلت وانت كان كان جرى لما بقى الليرة لتخمى وح لقان قرر du ma ko def mukk moo tax nag gannaaw a ngi yàlla mayu la waxtaan wi sax mënoon na yam fi état na kon nag loolu mu wax noonu ni ñu ci nampe ci moom sax ëpp na namp ko ci mom namp ci serigne babakar liñu ci nampe ak liñu nampal sunu bop waaw da na kon nak waxtanu fateli rek la waxon na len ci jamono koor gi xamé ñaari qul yi ah qul bi nga xamné al mutakallim al ilahi moko wax ak yow ak qul bi nga xamné al mutakallim ar rahmani moko wax ak yow waaw mu de al mutakalimul ilaahi lañu la wax na ko ñepp dégg waaye bu dee al mutakallim ar rahmaan yi nag mën nga dugg ci sa ruq rek lañu la wax nga seet loo cay def ñëpp jarul ñu di ko dégg waaw bu ko defee kon nag li ñu wax ni il faut du tout pour faire un monde aduna Ben mbir jagaluko ñaar jagalu ñatti jagaluko il faut un peu de tout pour defar aduna waaye il faut du tout pour connaître le Coran waaw moo tax baatu nu fassilul ayat Hamal xamal bi nga mën dégg waaye xamal bi nga xam keneen koy dégg aayaat li qawmin yaqiluun bàyyi koog boroom xel yi aayaatin li uli nuha te mooy xikma yi bàyyi koog ñi ko mën dégg aayaatin li ulil albaab boroom ñor yee ko moom waaw ñi nga xam ni duñu xool texte rekk pare leneen lañuy ñuy jëli waaw ndax seen ñor waaw foog nga xam ñi ko moom ayatin li qawmin yasmaun waaw mooy ñi nga xam ni seen nopp bii rek du leen tax a dégg bala ñoo nangu dégg gi seen nopp ruux ànd ak seen nopp xawaas bile waaw ah. waaw ak ayatin li qawmin yatafakkaruun bu yàlla waxee ba noppi foog ñu xalaat ba xam li ñu mën a dégg lan la waaw ak ñi nga xam ni ayatin li qawmin yuqinuun mooy ki nga xam ni contradiction du tax mukk mu weddi la mu gëmoon waaw contradiction dana ñëw nag mu jëm ko interpréter waaye du tax mukk mu weddi la mu gëmoon ak ayatin li qawmin yafqahuun waaw am na ñoo xam ni dañu maîtriser sharia ak la ca aju waaw moo tax boo maîtriser wul sharia ak la ca aju teeyal nga imam malik dañ ko wax ni ko xinziirul baxar ndax dagan na mu ne xaraam na ñu ne ko yàlla nee na yi ci géej yépp dagan na mu ne baatu xinziir bee tax حرم الله عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير منكم تدنا لحم الخنزير رك تيينا كو تد خنزير دغنا ما يينا كو توغ نك دا نين ورون باي رك تد كو دبت البحر ودل آيات لقوم يفقهون ها آه. خم لوي دغ رك اك فوكاي تك ku ci naag lañ ko jox ak ayatin li sailin waaw ñaar dugg ci ñiy cherché ak ñiy recherché waaw assailin aataakum min kulli ma saaltumo waaw waaw ñiy cherché mooy ñiy wër di wut lu ñu dundeek ya ca des waaw aqaddara fiha aqwataha fi arbaati ayamin sawain للسائلين waaw kay ndeysaan waaw ñooñu mooy ñiy cherché waaye nag ñiy def recherche nag laqad kaana lakum fii yusufa wa ixwatihi ayatin lisaailin mooy ñiy def recherche yi waaw waaw ba ci ayatin lil mutawassimin waaw ñi nga xam ni ci ay repérage rek waaw waaw repérage yi bu ko defee scientifique yeeg géomètre yeeg ñëpp dugg ci biir

a taluma ko bii yoon li ma leen jox yëpp alquran la waaw bu ko defee kon nag li jar bàyyi xel mooy ñaari yëf bu jëkk bi moo di wax naa leen ci waxtaan yu passé ni leen li ñu yàqale al yonent bi yëpp yàqale ko lislaam jaarewul ci côté alquran mais ci côté xadis la jaare كن جارول تي القران يقل الاسلام بي باسكو نيت ني كو سيقتخ يالا يوننتي بي جبريل فوفو فويت منو في ام واي لي نيو يقل الاسلام بي يتي حديث لا باسكو كوني ني يوننتي بي نينا te sañuloo kenn ci ñi nga xam ni yonent bi nee na nga di ko weddi te ñooñu nga sañul weddi am na ci ku yonent bi daan jàlloo ni ko antam ru'un fii ka jaahiliya waaye kooku nag grandeur yonent bi la ak rigueuram du tax yow nga àtte ci koo xamul kan la parce que yonent bi xasaa'isu ruux lañ ko jox la muy gis kiy taxawàllu du ko gis moo tax doo ci doo ci sa bopp yow seetal li nga war a nangu rek nga nangu ko loo warul nangu nga ne ah ma seet ko ba xam lii rek la toll bi ci des moo di wàllu jaahiliya boobu yonent bi tudd bu ngeen fàttali ko ci waxtaan yi passé wax naa leen ni leen mission boo gis jaahiliya koy teeru jaahili yaa koy gunge lu jara bàyyi xel la moo ñu toll ku yebbu wattu parce que ben transition mo commencé waxuma ci daire bi mais ci tariqa bi ak ci kër gi transition bi commencé yi ñu wax ngeen dégg ko moo xam lu leen neex la wala lu leen neexul

ku tiit rek am na loo dese parce que hadihi kulluha baadu ayati rabb te yowma yati baadu ayati rabbik لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أه؟ او كسبت في ايمانها خيرا yàlla yi mu war a def ëllëg yëpp du xëy rek ëllëg indi ko da koy topp jamono par jamono léeg mu dagg ca dara rekk livré ko nit ñi di xool ba xam waaye li mu ni léeg dina ci am ay perturbation te ci baadu ayaati rabb la bokk perturbation yu yëngal ruux yi yëngal xel yi yëngal xol yi nee na bu ñëwee nag ma di lay yëgal ni ku mu fekk lu woon sa pas-pas dëgër gëm ca bés ba du la jariñ ku mu fekkoon it sa pas-pas nekk fa te la nga ca war a def defuloo ko bu yëf yi ñëwee it bu ñu ci def amee stabilité yow doo amee stabilité boo tax kon am na loo xam ne doo xaar ba mu ñëw danga koy liggéey topp ko nag bañ bañaa yaafus que xam nga lu tax jaahiliya yi jaahiliyatu nuur dafa bokkul ak jaahiliyatu dalaam maanaam daan naa leen ko wax ci wax bu simple ka nekk ca àll ba benn làmp newu fa bu ne dama gëlëm ak lëndëm ba fa ne mënees na koo dégg te ki nekk ci biir dëkk bi lampadaire yi nekk fi mu ni dama gëlëm kooku foog mu jaaxal ñi mu waxal c'est une façon de parler parce que sunu boroom an nuur <laughs> man a dinaa ci ñëwaat sax mais pour ngeen mën ko dégg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem ci rañaan gi man a bi mu demee ba ci étape bi nga xam ni ñoom Jibril mënatuñ sañatuñ passé foofu dañoo livré ko moom rek di xaar muy xaar signalu borom bi mais foofu muy xaare signalu borom bi maanaam ci lamp yi war a takk comme ni ngeen gisee feu yi rek feu vert jaune rouge bu vertee nga dem bu jaune nga teey bu rouge nga taxaw am na foofu waaw kenn du la guidé anwaar yi rek ñoo lay guidé mais li ko jaaxal mooy laata feu vert bi di takk baat bi jëpp ànd ak feu rouge bi تموي بادو أبو بكر ففوتي الحضرة الإلهية فروج بتاك عندك بادو أبو بكر منكو قف يا محمد نحف إن ربك يصلي مجاخلة بأي من تلك الصورتين يسجد ndax bi muy ñëw ak imagination boroomam bi muy fekk ci majesté boobu ak tolluwaay boobu muy seet ban xeetu sujuut ak ban xeetu tesbiix ak ban xeetu taqdis la koy defal ñëw ba foofu ñu ni ko inna rabbaka li xaaral tuuti sa borom dafay julli ku muy julleel mu jaaxle parce que xamul léegi ki mu amal affaire kan la mais waxinu ka tax nga tal ko talu ko yusalli alaykum moo tax mu wax ko yonent bi antum tusallu ana usalli alaykum wa antum tusalluuna lii okay man may julli ci yéen ndax ngeen tala julli pour man kon ka tax nga tal ko talu ko loolu rek la bëggoon wax yonent bi bu ñaareel bi nag nga soog a dégg confirmation bi huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min alzulumat min alzulumat pluriel la ila nuur muy singulier leer benn leer rek la mais Euh, les années passent et d'autres viennent avec leur cortège de réalité mieux vaut rester sur ses gardes pour ne pas tomber dans le piège là, je suis bu rek parce que zulumaat mati dañu nga te ci lu nekk nag ci lu ne moo taxoon ñaan boobu Seydina Abou bakkar daf ko defoon bu jamono mais man ci sama niveau dama ko boolee jamono bi ak mufrad bi ndax ci góor gi laa ko mas a dégg à l'époque mu wax ko ñaar baat yi sax la tudd ñetteel bi tudd ko woon bi ma demee ci samay recherche ba gis fi ko Seydina Abou bakkar waxee laa ko def sama farata بولي جمع بياك مفرد بي اللهم اجعلني حمق فوق ما يظنون لا وخون من دمنا فوق ما أظن وفوق ما يظنون واغفر لي مما لا أعلم ومما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما أقول وبما يقولون أوكي أوكي وحن الدق بس كن خمول kenn xamul ku yóbbu di tey rek waaw moo tax ku yóbbu di ko ñaan waaw allahumma ij'alni fawqa ma adunnu wa fawqa ma yadunnun waaw waghfir li mimma la a'lam wa mimma la ya'lamun ولا تؤاخذني بما أقول وبما يقولون واو باسكو مؤاخذة بابا الأخذة bobo jara seet yàlla luñ ko indil ni julliti ko indi rek mu jël mi jël ba jël ba ngay seet ba xam ci ban la ndax akhdul qabul la wala axdul rad est-ce yi muy jël cautionné ni nangou nako la wala mu jël ko bonne noppi du ko cautionné ñu classé ko ok moo tax waaye nag lu jóge ci jullit moom du ko rejeté mais ne mu jël ko nag cautionné ah, ok ñu booleel ko ko ci biir dossier yi nga xam ni ñoom lay traité wala bokk mu jël ko fekk na nanguwul waye du ko delloo nonu kesse kesse daf koy classer classelu waaw kay waaw akhdhu al qabul ak axdul radd waaw moo kon bat bobu mu wax ci ka tax nga tal ko talu am nga bu ngeen di set ci walu géographie li ñoo tuddee ci wàllu planète bi pôle nord ak pôle sud waaw alqutbu chimali ak alqutbu janubi li dox seen diggante pour def équilibre bi lan la xatul istiwa mooy équateur bi mooy ne équilibre bi diggante pôle nord ak pôle sud mais bu dee ci sunu borom am na ko mais daf dul nekk xat حالة الاستواء لاي دون مو دوخ ديغنت عبوديه جامي اك ربوبيه يالا نين موسما تريتيك يين موك توك فما ني كون نيبالكو موتاخ موي ديف تنزل بوبو واو تنزل بوبو نيو تي حالة الاستواء نيت ني سين صاح تاك نديرام te nee na wàcc ba li ma mën a wàcc te du tere am ñu may wetti <laughs> ndegam yàlla muccul nag keneen du mucc waaw yàlla nee na wàcc naa ba li ma mën a wàcc te teewul ñi may weddi weddi ma waaw ba tax na tey rek ah sëriñ Katim bii may faral di wax ne ma ñaari baat dama koy faral di dégg ci yow mu ne ma ñëpp war dañ ko def seen yitte mooy baat bi ngay wax teey baatu teey mu ne ma lu jar ñu koy répété nit ñi la mu ne ma bu ñaareel bi mooy li ngay faral di ñaan naan yàlla yàlla mottali waaw ah, on sait jamais waaw tax na kon gis nga ci ISRA boobule <laughs> xoolal yëngal bi sunu borom yëngal yonent beeg Moussa ci juróom fukki julli te fekk yoolu julli beeg yee jaaju yëpp taxul mu yëngal ko ñaari baat ak la bëggoon mu jàng ko al farqu bayna taqlili wa taxfif la différence entre le nombre et le poids am na luy am nombre te du am poids am lu nombre bi di tuuti te poids bi ëpp loolu la bëggoon jàngal yonent bi rek ci diggante juróom fukki julli yi ak juróomi julli yi ah. waaw moo tax bi mu joxee yonent bi juróom fukki yi te mu ñëw ba ci Moussa Moussa ni ko dellul ndax sa waa kër duñu àttan lii dafa lànk ñu bari dañu defe ne daf ko wax rek mu dem déedéet defal lànk ndax daf ko nee dëbani rabbi waaw kay foofu la ñëwee addabani rabbi fa ahsana taadibi sama borom daal façon bi mu defeek man ruusati naa mu jox ma dara may delluwaat di ko gàntal yàlla dabaatal ko ne ko fa bi hudahu muqtadi ñoo la jiitu ci yëf yi comme wax na la ko rek defal li mu la wax looloo tax mu soog a nag dëppaat pour dem ci yàlla pour mu wàññi juróom fukki yi mu dem mu wàññiwaat mu ñëw ci Moussa mun ko dellul muy dellu di dëkk di dem ñuy wàññi ba ci juróom fukki juróomi julli mu dellu si nag yàlla ni ko ah yii jiitu yëpp ardul qawla la waaye juróomi julli yu mujj yi nag dootul ardul qawl xaqul qawla la kon nag ma yubaddalul qawlu la day ne ko maa ko def exprès ah xam woon naa ni dina am discussion ñu lay demloo di la dikkloo waaw waaye nag fi mu war a yëm nag bu jotee dootuma discuter waaw dama naan lii la rek ku mën a def def ku mënul bàyyi waaw foofu nag la koy jàngale lan mooy différence u ak taqlilu wa taxfiif waaw nombre ak poids bokkul waaw bari na lu bare te du peser dara ba ci mbooloo yi bari na koo gis mu lay toppandoo ci mbooloo toppandoo la ci tenu yi pour pour nombre bi te fekk poids yi ah, lam yashuqu ghubaarahu waaw bokkul mukk waaw bokkul mukk poids yi xaajul bokk wa inni mursilun ilayka bi arbaati rijalin wa kullu rajulin minhum bi alf عمر بن الخطاب اك عمر بن عمرو بن العاص تحاربوا القادسيه با مو جاخلي تي يوني كو لتر بور مو يوني كو رانفور د 4000 اوم تا مو يوني كو ريبونس بي نيكو ماغ لي يوني 4 اوم مي بن نيت بو تي نيك جوني نيت لا سي تريز امبورطون واو دو نومبر مي بوالا بوبو ريك مو لين دي يتيل yéen lu wax yi bare bare kenn ku ne nanga def ci sa bopp lum la wóor ni boo dee benn nit wecc nga julli feneen et puis moo tax baatu addabani rabbi fa ahsana taadibi <laughs> li tax mu neex du du yonent yi malaaka yi ñoo ko moom yàlla pour yonent bi yaral ko malaaka yi rek moo tax mu indi ko pour mu rañaan si parce que malaaka yi miin nañu exécuter ordre à la lettre mais xamuñu discipline bi koy accompagner parce que ordre bu gis amna discipline bu koy accompagner parce que ñi nga seqal nga lu xam ku ne lu ko yalla sédd loolu la bëggoon yonent bi yaral ko ci malaaka yi parce que erreur bu jëkk bi mooy atajaalu fiha réponse warul woon am yàlla day testé léeg-léeg mu wax dara fekk day testé atajaalu fiha

ñu soog a xam ne ndekete adabul xidmati aaz waaw ay san ndax façon baak yamu ko defee yëpp ndeysaan bien que gisul personnage bi ba mu jeex ndax mënu ko woon gis waaw parce que anwaar yi moo tax anwaar qudusi yeeg xijaab yi wër pour bañ mu gaañ yonent bi bien que peut préparé parce que pour ñu il fallait que nous décrocher 11 étoiles parce que 12 étoiliers étoiles 12. douze mais ben ne moom xel parce que sunu borom a garder étoiles pour

sa lawxul mahfuud bi sa ruux yor ci dañ koy bind waaw beneen yoon nga defati yitte ba ñu xëy ngénte waat la ni Abdourahman nga tudd tey waaw beneen yoon nga defati yitte ñu ngénte waat la ni tey yaa ngi tudd Abdul Wahab waaw waaw di ko topp noonu benn par benn ba fukk ak benn yi mat onze étoiles yi boo ko amee nag bu boobaa boo rañaaneeg boo rañaanul yëpp am nga daraja bi waaw ah. pour wax la tax na kon saan di tey rek waaw ah. di tey rek di tey rek di tey rek ndeysaan di tey rek ndeysaan moo tax ma leen di wax transition yi waaw ah. ak teey rek teey rek teey rek ah. nga dem ba yëg ni am na ku nga xam ni ruuxam soxla na la ba àdduna bëgg a tukki yëpp nga ni patt rek parce que dafa am lu tax parce que transition bi mooy tax waaw mu soxla la lool waaw maa ngi koy gis fan yii ndeysaan la yow mujj téléphoné sax depuis fa ma ne ne nañu wax soxna kii nañu génneel leen seen sarax waaw li gis fekk genre gis-gis bu mel noonu ci dañ ma wane woon demu soxna su fi waaw keroog ma xalifa mbay mii ñoo toog ci buntu jàkk ji ci biir gént gi waaw waaw ah. ba bi ñuy jël néew bi di dugg ak moom te jaare ci buntu kër góor gi Amadou Diallo waaw ah. ba ma dugg si ci biir euh, néeg euh, góor gi dugg ci salle de bi fekk néew biñ ma rombaloon ma ñëw fekk ko ci kaw baignoire bi ñu drapé ko ak drapeau bleu du ciel waaw takk tànk yi takk bopp bi takk ndigi li waaw ah, waaye li ma jaaxal mu ngi yëngu ci biir beñuwaar bi moom néew bi ma koy laaj soxna Kiné ne waaw lu tax muy yëngu isan te fan yooyu la soxna Sophie wuy ji borom waaw ah. ñu wanaat ma même cérémonie bi waaw ah. ma gis ko fan yi soxna Zeyna ngi taxaw soxna Sophie ngi taxaw nit ñangi bari dugg bi génn bi Omar Samb mi daw ñew dey ma ni ma gor gi nee dafa am gan gu ñew ah gan gi nak du lek lu dis nee nga wax ñu defaral ko rok so yebul ko gan gi ah, am ni sarax bi la ah, transition bi commencé na ah, téléphone téléphoné depuis fa ma ne ni nañu ko wax soxna Kine na ko génne te yéene ci soxna Sophie ak soxna Zeynab waaw ah, wax la rekk ci yëfu jaamur lañu ne waaw ah, ba defee ñuy tey rekk di tey rek ah, eh, yàlla am na lum dul yàq abadan moo tax boo nekkee ci say yiw sax yenn gàllankoor yi ñëw nangul ndax lii mu wax sànq ci mag ñi yépp mu lim leen ni buñ ma saaga ma fayu man ma jàpp ni négam ñi ko yilif la sañ loolu ci ñoom ma saag man mii mu yilif

bu mu la metti da nga dul xam lu mu fank waaw bu ko defee kon nag nañu doxalee noonu rek am na ko xam ne boo ko xoolee xam ni boo duggul aljanna du dugg aljanna kon nag weq na doom ja waaye bañu ko waaw am na koo xam ne boo duggul aljanna moom du dugg aljanna mukk waaw waaw waaye nag foog mu jaar foofu waaw foog mu jaar foofu bu ko defee kon nag e di bàyyante xel rek di fa tolloog nag comme ni ma leen ko waxee jaahiliyaat dafa bare te jaahiliya bu ne la ko réglé bokkul ak ba ca des la koy réglé tax fokk ngay seet rek waaw ba xam ci wàllu stratégie ah, lu mu laaj waaw ah. ma ngi fàttaliku bees di ma wax waxtaan bu mu waxtaan ak sëriñ Babacar ak waxtaan ba yegg fu nga xam ni njaboot bu ko fekkee woon nag yàqu na doo doo mën a àtte la nga fekkee waaye nee na mu wax ak sëriñ Babacar ak dënn bu tàng bu nga xam ne ba mu paree sëriñ Babacar ni ko nii laa bëgg bu ma tegee tey sama tànk fudul foofu rekk ñëwal wax ma la nga ma war a wax même bu tàngee waaye yoonu waa mbedd mi newu ci nag lu tax na di xàmme yu bari dafay nga fan yi demay xol ben reportage ma nga ci àll ba ñu wat attentat Anwaru Sadat إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام mën na nekk nitu diine mën na nekk nitu